jëm kaaba gi yàlla na leen ñu yéeg ci kaw kaaba gi di julli moom xam ne jigéen du baax yàqul ki dugg ci biir kaaba gi sax moom di julli am na ay wax ñi nga xam ne fii am na ci kanam ci biir kaaba gi du bokk ci biir kaaba gi rek di leen baax waaye ba tey li gën a wér mooy ñu génn ba am ci wax ñu gën kaaba gi naar yi dañu daan dugg arab yi ci seen yoon ci mel yi foofu la gën ak ñu ci biir kaaba gi dégg nga wax yàlla mu ndax loolu daf koy def in aw maas parce que doonte wàccoon ne day julli léegi ku nekk ci biir ci gëm bëri bi amoon ñoo ci aw la xam wala moom kay moo xam day julli wala di julli rek mën na rek jublu wet gi fii daaba ci jublu rek moom daa ngi leen am ñu jot mu ni dal di dugg ci mihrab bi dugg waaw taala laa def loolu moom mu tëj moom am na ci yëpp
waaye nag léegi maanaam ñi ko dëkk da nga xam ne borom xam-xam lañ xam ne tey bu doon dëkk lu ne boo xam ne moom xam na ne ay borom xam-xam lañ ci waaw ndax foofu kon mu mel ne kon réew mi réew mi jaayit la bu fa benn borom xam ne kese nekkee dañuy jàpp ne bu dëkk bu mag dëkk la boo xam ne kenn fa dëkk waaye xam ne léegi tey borom am na ay jàkk waaw yaakaar naa jàkk yooyu ñu toll nii benn bu ci nekk dañu ko daal xam ni def nañ sa nit waaw dafay ñu nit ci ñu ko sëkk mais moom bu voyage bu demee dëkk boobu man de war naa mën a rafet jot loolu amin bi bokk na nit day ak amin mooy comme nit ñi rek daal am na bu ñu jàngee xam-xam am na ñu xam ne ci xam-xam waaye ak ñu cay tollaxal la ñu ñëw bu ñu rek fekk ñu xaar ndax ñu di wóor na ñu ëpp am def am nañu taxaw ñu tale ko ak yéene yoo xam ne moom kenn duñu ko am ñu dafa war daal di ay xalaat tey day way tey ñu ngi ngir kenn te nit ñu tey ñu tey ñaar la ñu tey mu xayat ñu tey mu xamee ñu tey mu xayat ñu tey mu xaw ñu tey mu xaw mu mel ne imam Malik imam Shafi imam Abu Hanifa imam Ahmad ibn Hanbal imam Lawzaa'i imam Layth ibn Sa'd ila axirihi ila axirihi waaye ñu tey mu xayat ñu mel ne imam Ibn Qasim saxni ak saxni Abdourahmane waaw saxni ibn Habib mu nga ashab ñoom ñëpp dañ yàq ñu Abdousalam ba ñoo nga xam ne ay nit lañu waaye dañu tënk ci mbirum imam Malik wala ku mel ni Mouhamed ibn Hasan wala Abou Youssoufa ñu ñu tënk ci mbirum Abou Hanifa wala ñu mel ne ñi nga xam ne ñu nekk ci mbirum Ahmad ibn Hanbal ñu ñu tey nga ñu xëy na jëfee nga axli nga axli ñooñu ñooñu ñu tëj mu xëy ya bu fekkee nag ñu tëj la moom xam loolu aani bi nag moom day roy mu xalaat ni li muy royee am nekk ci njëriñ ak ulama yi nekk ci biir mbir mi ngir ñu ne ngir yi ngir mu ci nekk daf na école rek am nañu seen gisatu nafas seen gisin bi yoo xam ne ñoo ko bokk ak ñi fa jàngee ñëpp bu ñu waxee mazhab mazhab imam Malik maanaam mooy école imam Malik li mu daan jàngale li mu daan jàngal bu defante ñoom ay ñu baax la bu suñu ay masala di ci garante ba d'accord ci dara wala Malik boppam jàngale ko dogu ca wala mu wax ñu ba mu yàgg ñu dellu si gis leen ñu gis mu wax ni ñu wax ñu jàpp wax ci mujj wax loolu mu nekk école la boo xam ne seen xalaat mën na wuute beneen école boo xam ne dañoo am seen yeneen xalaat yi mën nañoo gis ñoo xam ne ñee gis ko wala ñii la ñee gis doy loo ko ñoom day dem ñu ko ñun ñooñu xamaa donte duggaloon itam moom muy tëxit bi waaye wax ala laa def ni rek ani lekk lekk bi tegtali dana dugg sànnam dana naan bu sànnam dana weer yi ndax jàpp ñu ngi jàpp ñu ngi jàpp ñu jàngat ñu jàngat ñu si weer yi jàpp si weer yi si fan yi ñu ne ñu ngi ci wala wala wala ci weer yi
ci wàllu koor gi xam nga boo xam ne yow léegi
waaw kooku loolu moom ndax mu ngi amul ak yàlla bu ci nekk xam moom moom doo dañuy jël kii bi nga yomb mooy ko xam ne ba léegi ay alxames yu ko xam nga boo gisee loolu lislaam ci njëlbeen bi daanaka jànge wu ñu dañoo jànge nit li ñu bind sax nga xam ko mu di aar jafe mu leer la da ngay dem dégg ko sa nopp ci ko bind imam Shafi bi ñu jógee Makka di jànge al Muwatta ci imam Malik fekkal mu mokkal te imam Shafi bokk na ci ay aïmmatu luxati ñu gën a xam lu ñu demee ni ci même Nasmaayi Nasmaayi ñu fii moom ci wax jàng na ci ci jàng na ci imam Shafi ko waaw boo ko jàngal ci wàllu gisal ñu ne kon nga xam ne imam Shafi dëkkul arab ba day waar ba ba daan moom ak Abdul Hamid bu ñu mosaan daje ci imam Malik am na am na am na ci moo ko bind kat bi de léegi bu ko rafetlu rafetlu nit ñi waaw dafa la bokk. wala ci Abdou Razak ibn Hammam wala Abu Nuaym dañ naan waxante ñoom ñaar ba ñu fi nekk ñëpp di dégg ñu wax te arab yi imam malik dafa dem ci baat yi bi am fukki at ak juróom ci di jàng arab rek mokkal fukki junni yi way yoo xam ne daf ko boole li arab ba ak sax xam nga ñu daan jàngale ñii dañuy ñëw jël jàng arab ngir arab ñu koy waxee nax bi ak sax bi ñu ñëw ngir faq bi ñu ñëw ngir dégg ñu dégg alquran ak duñ koy faral fàttee imam Shafi moom ñu jàngi mu wax ci Malik wax mu mokkal mokkal moo xam waaye faaw ñu dégg ko ba ba maam ñu daan arma bi bu fekkente ne li muy jox lépp daf ko dégg assimilé ko ba xam ko mën na am ci dara di istihaad wax ñu naan ñu gàttal ñu gàttal ak mu naafara moo daan gën a restaurant moo daan gën a dëgëral seen xam-xam daanaka léegi jàngalekat bi jàngale na ba dem ñu doon jàng nekk di delluwaat masala yi di fàttalikoonte di laajante di kidante ba nga xam ne nit ñu ci nekk day sax ci seen xol ak seen di xam ko mu leer loolu nit mën na nekk ama ba noppi am xam-xam bu wér boo xam ne dana ko àggale ci daraja yi ci itaat mu ne wa qallada royat na xayruhu kudum mujtahid ku ñu roy mu kallafan mu kallaf la yooyu aarifa mu di aji xam aw mihraab wala mihraab laaj ko suñ tontu mu lan la nga doyloo ko aw mihraaban wala ñu ne fekk jàkk bi ñu jublu nii ñu jublu nii dañ ne di fekkee ne amul nag mu ngi tëri aw taxayira gisul benn def daf di dem lan lu mu wax sax lan la muy julli def na mu ngi ci àll wala mu dikk ci dëkk boo xam ne ñu ah wala mu gën a xam وتقل تحير متن day tàng ak dum jub xam nga kon laaj beneen ci bu ko xam day laaj waaye comme day tàng léegi day seet rek la gën a mag ci njortam dafa ñaan ñu ñaan ñu la waaw te li muy gis moom su fekkente ne amul lu mu laaj wala tegtal yi bu si ko yëm maanaam moom nga xam ne du ñu tëri gisul dégg gisul mexraab gisul dara lu muy rey wala mu tëri ci boppam moom moo gën xam nga moom dañu dina jaaxle ñu xalit bi maanaam aam bi nga xam ne gisul mexaab gisul ku mu roy wala ku mu laaj ak mu tey bi nga xam ne dafa gërëm gisul tekkal yi moom ci tekkal yi la war a jaar kee dafa war a laaj kii dafa war a jëndoo ci tekkal yi kii gisul ku mu laaj ku gërëm taxayara ram ñoom ñaar ñi ku mu ci doon taxayara mu tànn te mu jëm rasul la dañ ci julli woon na arbaan jubli si ñeent xibla laxasu na mu rafet waxtu yi dafa nekk na loolu la wante bàyyi na nit gis ne gannaaw bu mu jugee ba wala ci biir julli bi xaqa un ak mooy xëy la bu wér bi salaat mu nekk ci biir julli bi muy def xataa kuy tagg daggat na kuy dopp julli rayu ama kudum jumbo bi ba mun xaree fi ak aji aji jëng ci yësir lu néew nga xam ne kan bi mooy kii bi mihraab bi ak mu def nii rek julli kooku bu ko xamee ci biir julli bi day def nii dana ko daa xam wala ki nga xam ne ni way tabay na xata bis laa bi xata a rayu ama ku dul gumb ah ku dul ki nga xam ne tuuti la mooy moo xam ne mooy tëg moo xam moom na dañuy dagg seen julli na ki nga xam ne dafa quelque baa ni mu def nii moom bu ko xamee rek loolu ndax julli bi doxal bu baax bu dee gumbo bi moom koy tourné ndax moom du xam ne seen julli du feex moom da koy xamal ne ko nii su nga xam ne moom tuuti la jàng day daal gis nii rek continuer ndax mooy bi mu ko mooy tuuti du am solo mu yàq julli ko itlaaq wala moom it am na fu ñu ko tax yéene.
غير أعمى لم أنت الوقت خلق غير مثل وقت غير أعمى واو يلا
maanaam day wane ne moom bu dee gumba moom ci islam bi léegi. waaw bi bi ñu ko sóoree léegi gumba bi dafa ko def dafa temb dafa nekk ni mu mu mooy bu bare bare ba jëm nii. waaw kon dana baax dafa ko dee jigéen. daa julee mbir
ñoom ñaar mu ne lu ñu leen lu ñuy def ñoom ñaar ñu mun laa doon misaal naa ko taas ñu njëkk ko fa yastaqbilaani daan ha wàllu kaaba ma ne xanaa loolu mooy bi ñu nee ci biir julli waaw bu fekkoon ne sa yoon nañu mu ñëw baax daha bu fekkee ko fàttali ko ci gannaaw julli ba aada bu mbaam ci wax ci waxtu al-muxtaar bi tànn mu ne waxal yàlla mu ndax ñu it dana baax dinaa si aji fàtte abadan faw lay baam wala ci waxtu moom kat xilaaf dégg nga moom dafa fàtte ne jublu kan ko sàpp la ku jublu te jublu kan am nga jublu fàtte la day baamu faw ba mu jublu yeneen weer day baamu faw ba abadam wala moom kay day baamu ci waxtu rek ndax rëcc an ummati alxatar wa nisyaan mustaqrihu alayhi xilaaf waxoon na leen bële ci xalaat bi ci tàmm bi wax nga ko dégg la ila ila law law mooy ila xilaat bi dafa di waaw loolu moom laa doon bëgg rek wala wasala arbaa wax ko xanaa lu ko dafa am dañu indi la
yéet wala sàlla arba wala ah wala ila xilaat bi wala wala jël wax wax waaw waaw wala ila xilaat bi bu fi waxee rek bu nee law rek da nga xam ne am na meneen mbir moo xam ne loola moom saxal na ko li mu dàq ne bu doon noo nangam am na ñoo xam ne bu dee nangam de du kal ñoom day daal jikkee waaw وحرف يزيد في الأصل منهما الاختلاف في ذات بين وخطأوا بعدها وهذا في قلة الدار وأما قلة القتل بمكة والمدينة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام وجاز الحمد ونحوه فإن تبين خطأ في هذه الثلاث غالب حقها مطلقا ولو أعمى منحرفا يسير ومنحرفا يسير فإن لم يقطع فيؤذيها أبدا. waaw مسجد أمر الأهل ويكون يتكلم te nekk ci biir rek nit ki bu ñu seen xabaar wala def dina indi yeneen xam xam ne ne kii moom bi mu wax moom dégg nga gaa si dara na xam ne duñ julli sunna julli boo xam ne sunna la mooy naafil la xëy xaa ci biir kaaba dégg nga mu fi xajri ak kenn bas benn moo ci boor ba ay jihatin nga jublu ke kon ba ay jihatin bu nekk ci mbir kenn anam bu mu mën a doon boo mën a jublu rek waaye laa ko bu ndee du caa gën a farat ndax nga nekk bis bi lay farat nga nekk yow du ko def ñu baamu ko ñu ci wax waaw uwee jam ci lay fat na dañu seen ci fàtte bi di tax ci boyal nga xam bu ko fàttee rek lay doon noonu nga xam ne dana wér waaye dana baamu ci waxtu wala moom kay bu ko fàttee bu ko fàttee ñu leen ñu bi nit laax bon ko lekk ko bi ci nekk am nañ ko wax bak la yàqoot na far du julli farata la zahriha ca kaw kaaba ga waa ji dafa yëg ca kaw kaaba ga mu julli jumlu ci kaaba gi yàq na julli ga mu nirale ci ci yëg leen yàq mu nekk raaki bi naka doon aji war mu war wala gëleem wala mbaam wàcc julli ci suuf ngir ñu daal di julli farata rek kabar dana yàqu de mu ne ko xanaa loolu faw fekkaa bu mën a mu ne ah billahi imtihaamin lu dul ngir tarab xare bi loolu day siy dafa dal ak xel yi nit ñi daggatoo ba yàpp yu bari lool wala imtihaamu xar bi aw xitaal bukum raain man xal aw xawfin wala salaatul xawfi julli ragal boobu de min nga ragal loo ragal min sabu in ji la nekk gaay def soo laaj gaay gi naan la def nga dal di ci kaw daa ko lii daal di jëlee wa in li xayriha donte jubloo na suñu kaaba bi waaye way am na bu fekkee dafa wóoru daal dama ko xam ne wóor na ko ne gaynde bi dem na wala xeex bi léegi jeex na ba ñu tëral gànnaay yi aadama baamu ñu xay ko ajjara dal jewoon gaynde baamu day baamu abadan wala day baamu wax xam ne du wax du wax illa li xabxaan ak ndaree yu benn tuuru mbër mbër boo xam ne ay doxu kàttan ba mën am musoo la wàcc bii ci moom nga xam ne daal ban bi daal booy wàcc rek di surux da ngay dugg ba ci biir nga dem nga ji si kaw war waay
maanaam kan bi mooy ndax sa yére sa yi tànk ñëw suuf waaw day da ngay ngër ngëree la xam mu ne ñu ko xam ne daal tey ñu ko wàccoon ne ñu ñu ci limal yéen ñu ko waxoon na ñëw boobu daal ah ñun boobu bu fekkee ne bu soobee dana mën cee julli dana dana baax waaye bu fekkente ne kii day julli nga doo mën a julli ndax léegi bu fekkee ne mën nga taxaw mën nga rukkoo mën nga siggi waaye doo mën a siggee doo doo mën a julli dégg nga ko ay marab yi wala ngiru ràmb dafa feebar ba nga xam ne mu ngi wàcc nga bu wàccee du mën def dara mu ne kon nu muy def wayu addi haa wayu addi day jox haa julli ba aleha ci kaw daaba ja te ar bi ni mu ko doon jox foofu nag wala haa dégg nga mu ne fa la haa kon day jublu xibla gi rek ni mu ko maanaam ni mu koy jublu rek ni muy jullee suuf lay jullee maanaam day jublu xibla waxyaa ni mu koy firee waaw waxyaa jàng fi ci mu dawoon na karaaxatul axiir yi ci biiru matal mu mujj nii muy wax ci affaire bëri bëri bëri bi day ko wàcc waaye xam naa bu wóote bi itam ñu ngi aju ci nit bi nit gën a baree ak nit gën a néew dana am dëgër yoo xam ne bu ca tolloo nit ki dana julli waaye am na ko xam ne bu ca tolloo bu wàccee du julli dootul daal ndax tamit du toog bu ci jóg loolu loolu yéen lu lan ñu lan léegi kon ñu ngeen laaj ñu laaj yéen laaj wala may laaj ma dem
ma ne fii moom ay nuyu bu nekk ci suñu wér waaw xanaa bi bis ci bari mu jógee xanaa bi nga xam ne day jógee xaw a waaw mu ne waaw buñ demee ci wa illaat ado fardan ala dabbati li xabqaat ay fii la yutiqun bi am dab faxatu xarqihi أو تلوث ثيابه ولو التي لا يفسدها الغسل وخاف خروج الوقت بس جبول لي الذي هو فيه فإن كان يطيق النزول به لزمه تأديتها على الأرض ولو بالإيماء boo xam ne si gannaaw ne doon fekk bu wàccee day day day ji waaye kooku beneen mos la woon bu wàccee bu fekkonte ne bu wàccee itam day ji waaw wa illa salaatu ala dabbati li maradin يطلق النزول معه الى الارض والحال انه يؤديها اي يسلم الفرد عليها اي الى الارض.
li ma la gën a yóbbu fii. li yóbbu mu gën a wala laa yóbbu mu gën a maa.
dafa wax ne li ma la gën يطلق النزول معه الى الارض والحال انه waaw waaw.
والحال انه يؤديها عليها على الدابه moom nag feebar bi sax muy si moom waaye mën na wàcc ci suuf waaye dafa nekk ci état boo xam ne julli ci kaw daaba ji dagan na ci moom ndax mu ko war a daf ko mën a julli ci daaba ji mi nga xam ne noonu la koy jullee ci suuf bu dee day julli nga xam ne bu wàccee ci suuf it day julli mën si kaw daaba ji daaba gi ñu gën a mën a jullee ndax suuf gi day julli rek daaba gi nag maanaam tuddeetuñ ko julli ndax yaa ngi ci kaw daaba bu fekkente ne nag wàcc na feebar na waaye mën na wàcc waaye bu wàccee itam feebar bi tax ne day julli rek am na am ndax waaye xam nga ñu waaw waaw.
mooy li li mën a def yu maanaam yu teel maa ngi ko maanaam feebar bi tëriñ ko waan mën a wàcc waaye bu wàccee nit kon sax na day jigéen rek kooku moom am na avantage ci bañ a wàcc daaba ji ndax daaba ji dana dem te bu wàccee ni tamit da julli julli bi ko gën ndax day junj ba nga te du dem te du tax
waaw am na ci njëg yi lay ñëw. nga xam ne day ci lekk jóge ci kaw gannaaw daal wala ñu ngi ñibbi si suuf.
ki ci kaw daaba ji nga xam ne kaw daal la.
ki ci kaw daaba ji day jigéen ci suuf day julli ci suuf gannaaw bi daal.
waaw rakk julli xëjee comme liñ ci sàkk ñaari biir loxo yi ak jaar bakkan ñaari woom ak parti tati kii yi la ñu sàkk mënoon mu tege ci suuf wala lu ñu laal ci suuf wante bi daa ji ne pour suuf si moo am cër moo moom la ñuy jullee nga xam ne boo boo dee ji itam da ngay yéene àgg da ngay yéene mu àgg foofu wante du ne suuf si rek moo tax ñu wax ba nga xam ne boo tibbee suuf mën ca teg sa benn yenn ñu xamoon ñu ci def maanaam ñoo xam dañuy defe ne suuf si la muy sujjóot bi te bu suuf kon di sujjóot daal di nañu sujjóot te loolu kon bu sujjóot sujjóot sartam mooy lii lii ak yii mooy li tijaan yi defee ne naa mu ci dañuy sujjóot mu ci ñoom ak ñeneen ñoo ko bu sujjóot ci ñàkk xam waaye ñaar moo am benn taqdim yel wala tabarruk waaye sujjóot moom mooy ñii kooku moom defal ko kurul yàlla xaram xaraa nag ñun sart sujjóot ci sart sujjóot yooyu yëpp dana tege ci suuf ba noppi ànd ak yéenee jaamu loolu lañ tuddee sujjóot waaye boo ko defoon te yéene woo jaamu xaraa tuddee ko sujjóot waaw nii ñuy def rek du sujjóot du sujjóot waaw fa inna wàllu xamatullah waaw dañu ne lu soxla waaye nga ñett dafa am ñett daraja na wal mansuux kitaabatan wa qiraatan wal mansuux qiraatan yaa kitaabatan am na bëgg kitaabatan kitaabatan fekkente ne léegi aaya ji dafa ñëw ndaganal wala mu def wala mu xam ne waaye ñëw indi leen indi lépp mu yokk ci la waaye dindi ci li mu waxoon dara daf cee yokk rek yeneen wala mu leeral kooku man foofu la xokk man waaye la kitaabatan wala xiraatan ndax ba tey wax na bi suñu borom nan moom mu bokk ci alxuraan ñu di ko jàng di ko jaamu yàlla mën koo jullee di ko waxtafe ba noppi àtt bi des fi man suuxam كتابة قراءة وكتابة لا تعبدا نفكر ذلك آية بتاي أنت بني يكري بني دني أو بني بسم بجفة beneen aaya indi na ko indi na lu dàq loolu ba saxal jeneen jëf yoo xam moom lañ war a jëf waaye nag aaya yi gannaaw rasulee ci alxuraan dafa am biir ak bitti biir bitti ba moo moo mën soox biir bi la muy tekkal ci biir nga xam ne borom basaar yi ak borom xam-xam yu baatin yi ak siddiqoona yi ak aarifoona yi ñoo ko xam nga fay def di ko bind di ko jaamu yàlla waaye ak bi nekk wala mooy mën suuxal ko xiraatan ko kitaab sa kenn du ko jàng kenn du ko bind kenn du ko jaamu yàlla kenn du ko doxal ko atte atte ni ke cheikh wa cheikh ila tan ya farju muhma al batan kala min allah wala takru ila akhiri ila akhiri xam nga aya bi atte bi dem ba noppi amatu lu muy tegtal lu ci biir wax mu waral ne ñu wàcc ko fi di ko jàng bindatuñ ko jàngatuñ ko nit di ko wàcc léegi kuy julli parwaale ko nga nga si jóg ndax daf la ndax yokk nga julli bu fekkee ne bari na julli yàq mu mel ne alqiraatu shaaza jàngin yoo xam ne ñu ko jàng ba ñu ko jàng léegi bëriwul mooy jàngin yoo xam yëpp si ñaar man tere woon na ko si ñaar man moo nekk booba amirul muminin lu mu digle war na jullit bu nekk nga jaar mu dajale benn commission bu nag juróom benn nit def Zayd ibn Thabit mooy amir bi moom muy président commission bi mu dajale alquran yëpp booba dañoo gis ne jàngin yi bari na trop ñi jàng yi ñi jàng yi dem gis ne alquran danañu ci jaxasoo kenn ku nekk comme neex nga jóg waxee mu la neex moo daal di bind loolu noonu ñooñu ne leen bind leen ko ci loxoy Xuraysin mu bind ko ci loxoy Xuraysin taxta ishraafi Zayd ibn Thabit bu ñu ko bindee ba àgg ñu jox ko naan xool dal ne nañ ko bind te yeneen alxuraan yi ñoom yëpp seen jibi ji nañ ko def ñu nañ ko tax su wala ñu wax ko su ñu wax man dal di par faratal ci nit yi jàngin boobu Seydina Abdoulaye ñu mos ko xëy na jàngin boo xam ne continué na ca moom lay jànge man li nga xam ne salaatu fan boo fi ar ko dee ak fan tas bi fan boo fi ar fan boo fi ar tax du ko wax ñu aaya maanaam benn la waaye kii bokkul boo royee ci koy jàng sa julli yàqu na boo ko jullee itam sa julli yàqu na te ñu leer ne si nag ren ñu ngi suuf xëy na ñu ngi doon jàng boobu xam nga gannaaw si doon fi mu saxaloon na kaamin boo xam ne ci la julli ñëpp war a am duñ may kenn koo xam ne julli na dina ñëpp ci nas ñu wax yu bari ci na ñoo xam ne Seydina Ousmane ne woon ne loolu dañu bëgg wax ne kaamil bi ni ñu ko bindee ba tey des na war nañ ci am jiw ñu wax ñu ne Seydina Ousmane dafa ne li ci def arab yi daañu ko bëgg ci seen lamiñ ñu ko waxee sax ci day dañu ko mën yàqu sa tëttee mu rubb xam nga ci la xam ne man laxna laxna biha qawl Ousmane fima sami'a loolu kenn du ci gën a kon kenn daal jàpp ko ndax loolu dafa bëgg saxal ne am na ay yàq ci bind bi ba naan arab ñoom arab ñoom arab la ñuy wax daañu ko di bëgg ñoom seen lan te bu yàq yooyu am solo loolu lañ bëgg a saxal mu ne suma sumee am doon wax kenn dégg ko li leer daal moo di alxuraan nii ñu ko bindee nii ñu koy gisee moo ci benn baat lañ ci la bokk ko def kufru la wàññi ci benn baat ñu bëgg ci kufru la wal bëgg ci benn baat bindee ko neen wala nga jàngee ko neneen da nga dogu ci du jàgg ni ñàkk xam waaye lañ ca dogu kufru la
xam nga ni dañ leen gis ne bu fekkee ne léegi bàyyi mu mag waaye li si tànn ndax mu ngi indi si jiw rek waaye mbir yàlla dafa nekk waaye maa ngi ci ñu si def. fekk ngelaw ci yëpp ndax dañ kii def ko mu wàññi ba mu wàññi kii ñu sama ko.
waaw man ne la benn bi mooy ci wàllu mat bi ñu wax nii. xam nga ñu wax nii bu fekkee ne dañu ñuy ñu not. dëgg la ñu yëpp laata ñu bëri. xam nga.
nga nga nga toog nga toog. waaw bu ñu ñaanee dañu.
waaw bu ñu natt léegi te defe naa ne dañuy wax suñu bu dee julli fàtte wala ñu ñaan boo ko topp na ba weesu xaaral day bi julli yàqu.
julli yàqu waaw.
waaw ndax man xalaat xam ne moom boo ko lay si liggéey yàqu yi ci des tere nañ ko waaye xalaat xel xel mel noonu fekkee ne day mat na bis ba boo ko topp ba ba tudd xalaat xel mel noonu moom julli yàqu.
yii moom bu ñu doon du du du yàqu waaye boo ko yëngaa ko bu ñu suuf day yàqu.
day yàqu.
waaw loolu ndax mën nañu wax nañu ay la bi wala.
li la fi moo de li ñu wax salaatu xaar mu ne noonu xam nga Seydina Bilaal waxtu si loolu dafa jot ñu ñëw di wax ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam naan wax ci yonent bi di sàkk muy nelaw muy nelaw mu bëgg ko yeew ne ko salaatu xaar mu ne noonu wax ko ñaari yoon yonent bi Bilaal ne tërëb yeew ne ko loolu de Bilaal bu jóg ci sama bi ñu demee rek ñu loolu bis ba rek ci rek ñoom ñaari yoon ñu ko waxoon ba yoon bi salaatu mu ne ko ñoom dem nañ am répété ko ñaari yoon salaatu xel mu ne ñaari yoon loolu waxi Seydina Bilaal kon kooku la nodd maanaam xam nga nodd gi sax ba tey yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daf ko am ne waaye ñaari ñaar ci saaba yi ñoo ko gént ñoo géntandoo mbirum nodd bi moom wax ko yonent bi mu am mbirum suñu borom la santaane bu santaane nag ci biñ daan dóor di woon nit ñi ba ci julli bi ñu nodd leen nodd bi nag ñu koy nodd di nodd di nodd ba bis boobu Seydina Bilaal dégg nga dal bi radiyallahu anhu xam ne wax ko suñu jot na mu ñëw di ko wax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ñëw dal di taxaw ci kon salaatu xayrun minan nawm jullee gën nelaw ñaari yoon yonent bi daal ñu dégg ñu ko loolu de Bilaal def ko ci sama donc loolu moo tax waxi sidna Bilaal la boo ko répété ci julli sa julli yàqu
isaay bi bu la fekkee nga jàng alquran ci dëgg bi nii noonu maanaam da ngay fekk jàng alquran loolu la tudd déedéet da ngay jàng alquran ngay jàng alquran bu la neexee bu la neexee ndax kii jàng alquran tey julli te nekk ci naaj bi may nañ ko kon kii jàng alquran te nekkul ci julli nga xam nga eh, jàng alquran ay daraja la Eh, alquran bi nga jàng ci biir julli benn tuyaaba juróom-benn téeméeri daraja ci jàng alxuraan ànd ak njàpp jublu fenn te ci yiw kooku itam mën na ëppee daraja ki jàng alxuraan jublu fenn te àndul ak njàpp kooku itam noonu la ëppee tuyaaba ki jàng alxuraan jublu fenn te àndul ak njàpp ba ci ci tëb di jàngal waaw xam naa ne jàngi wala fi xam nga wala fi wala fi naan gànnaar bee ko jàng nga naan gànnaar yow ñu yombal ñu diine ñu bu waxee maxaar bi xaw fi wala fi mënu koo répété mu ne fii ajam la mën la dégg waaye nag wuti na ñi taxoon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne siinu bilaal siinu alhamdulillah bilaal ajam la wax dëkk na ci réewu arab yi ba juróom fukki at ñuy làkk arab ñu dégg arab waaye mun na wax cheikh li dul sala yo ashadu anna muhammadan rasulullah day wax bi ñu ko waxee yàlla bi salaa sallam yàq yi bilaal bi yàq mu ne siinu bilaal siinu na indallah maanaam bu bilaal ne ashadu day mel ne ki ne ashadu mais bokk tuyaabaat ak teg yëpp waaye bilaal nga xam ni kon mën ko ko jàngal ba mu mën ko am na nga wolof bi nag dañ ko koy jàngal bu ko ko jàngaloon mu mën ma xaar ne foofu da leen daañu ko jàngi fii ci kanam ci xarit bi ne nga topp ci ku mënul ma xaar nga trop tere nañ ko bu fekkee ne koo xam ne moom mënu ko bu ko jàngalee du ko mën am na gaal waaye bu fekkee ne bu ko jàngaloon moom waaye jàngale ñu ko muy wax noonu wax wën wën wën waxee ak wala laal yi naan yooyu da nga yàq ci biir.
man de bu bu bu waaye man de ma xamatul daal ci ban joxul mu loxo daal. am na moom ak ñu bëgg ci ne am na benn xam ne arab yi jàngee maa ñu bëgg jàngee laa.
laa am na am waaw am na waaye nag alquran moom dañ koo tëral ci li ma waxoon sànq ne Seydina Ousmane ñun ñaan na wax boo xam ne mu wute yéen na ngeen topp wax ko prêché wax ko nga xam ne itam ñaar wax na ci yéen ñu jël ci Seydina Moussa bi ñu xam ne Seydina Moussa bi dafa jàng dafa noonu dara ba ñaa nekk ñu gërëm ñu njëkk woon na wattu alquran ci jamono yam bi di sala bi sala bi nekk xale bi ndaw loolu kii boo jàngoon Muxtaar bu ibnu Buur kii xam nga alfiitu mu maari la boole beneen alfiit boo xam ne ci xiraal ci ngay gisee al kaf al kafkafeetu al lallalatu al al jaljalatu al galgalatu yooyu yëpp li nga al kafkafeetu mel na tey jigéen nga ne ko lati wala nit yi wala siiki nga ne ko lachi wala fii chi wala min chi wala ale chi asalaamu ale chi ila axiri waaw yooyu nag toujours booy dee jàng naaw bu ko poussé ba mu kii ba ru bu nag da nga gis yooyu yëpp àtte ak àtteem ak ñu koy wax arab ak ni mu ñaare ak li nga xam ne sañ nañ ko wax ci alquran xadis
bu léegi ci wàllu kii ci wàllu alquran xam nga kii dafa wax ne maanaam boo ñëwee danga wax am na am na am ci loolu day wane ne man de ci leer bi tamit dafa ko wàcc beneen aaya bi ci kaw ne seen ramadan ñu ko ëngale bi alquran bu dul bi nag ba ñu nag ñu ko alquran ba defee léegi ni loolu day wane ne aaya bi day wane alquran bi leer bi xabar la wàcc bi ci des moom man ci weeru koor laa ko wàccee waaw wàcce boobu xam nga bu ñu dee xool nii ci kaw rek day daal doon naan alquran alquran léegi day ci weer koor laaj est ce que loolu bu ñu toll nii du ëndi jéem jaaxal ñu jiwul naan léegi de man bon maanaam sax mooy koor ci boppam dafa jiitu wàcce alquran wala li ñu ciy jub maanaam wàcce bi mooy wàcce boo xam ne day fi fi la asar wàcce bi mën a asar bi waaw gis nga شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس ومن يأتي إلى القرآن ليلة القدر la wàcce ila sama dunya waaye nit ñi jotu ko xamaguñ ci dara su ramadan mu wàcc ba suuf gis naa ci dugub bi ci indi mu nekk gën a aay fa aay léeg-léeg fukki aay fa mën a wàcce la léeg-léeg ñetti aay wàcce la léeg benn aay wàcce la léeg-léeg aay di wàcce la mu aju ci tënkin gi rek nga xam ne ñaari wàcc kon alquran wàcc na ko wàcc ñetti wàcc wàcc bi sidna jibril indi ñu wax